pollution yi nga xam ne moom moo ne ci pays bi ci Medina Baye COMAF yore mbooleem activité yu aju ci xadra bi ci fayda bi euh, cahier de charge bi ñu defoon ak monsieur le préfet ak CDT CRD bi ak monsieur Aliou monsieur Aliou Ngouille Ndiaye euh, lépp engagement yi nga xam ne ni gouvernement bi jëloon nañ ko wax dëgg yàlla man maa ngi ci terrain bi mais mi ngi mi ngi dox daal li nga xam ne. bu continuer noonu fii ba gàmm gi di jeexee je pense que li ñu engagé woon dana mat. ba mu des Ageroute Ageroute am na ci yoon yoo xam ne engagé woon dana ko def waaye xool nañ ko mais bis ba léegi daal gisuñ ci lu doy ñu doy. li nga xam ne tam moo aju ci RTS bëggoon nañu ay couverture yoo xam ne dafay am direct wala pour dara mawlud bi di jàll chaque jour. ba dëgg yàlla euh, amaguma ci confirmation bu leer waaye li ma jot ba démb am nañ ci ay rëq-rëq yoo xam ne nii euh, des na bon su ko defee itam li nga xam ne moo ñu ci douane bi tam am na tuuti coow lu ci amoon ci kayit gi niñ ko bindee te jaaru ci yoon. doomu aadama du wax ko pare nga ne tegu ko fenn wala mu bokk fu baax di ñu baax dañu ñu tedd nga ne tegu ko fenn mais li nga xam ne man moom a concerne man su fekkee ne ñaari organisation dafay am ci dëkk wala ñett loolu organisation nekkatu fa benn organisation boo xam ne nii moom la xalifa bi reconnaître officiellement muy jëflante gouvernement bi man ci làmmiñ boobu ci laay wax. su fekkee keneen wax na nag wala ñeneen wax na wax dëgg yàlla moom loolu engagé wu ma man en tant que président COMAF engagé wu ma en tant que euh, ku bokk ci kër gi engagé wu tamit ki nga xam ne mooy xalifa Medina Baye muy Mawlaaya wa Sayyidi Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass. ci gisuguma ci kenn ku taxaw wax ne ñi nga xam ne yor nañ commission te état bi war cee def dara loolu laa wax gisuguma ci kenn koo xam ne taxaw na wax ne loolu amut su fekkee am na tam man su boobaa su ma ko yëgee la ma ci xam muy dëgg. danaa ko wax la ma ci xamul muy dégg danaa ci màndu